noo ngi sant yàlla mi nga xam mooy buur bi nga xam ne mi ngi taxaw ci mboolem jëfi jaamam yi mooy buur bi nga xam ne mboolem jëfi mi ngi mu takk moo jëf yu néew la moo xam jëf yu bari la noo ngi seede tey wóolu tey dëggal mooy buur bi nga xam ne amul benn buur bu dul moom seede sii nag seede la soo xam ne képp ko ko seede sa xol dana feq ak i leer noonu ngi tey wóolu tey dëggal ne سيدنا محمد موي اب يونتيم موي سونو كليفا موي جامو يالا با مو گن سي مبولم li يالا بيند te لي ما seede nag seede la سو خامني خيت وي nga xamni ñoy gën ci xeet wi sédé nañ ko ci moom julli ak sëlmal yàlla nek ci mom mo ko ñama ke sahaba mi nga xamni seen dara ji reyna te seen maqama yi lu yaatu la kon mbokk yi dañuy sant yàlla dañuy sant yàlla ci xew-xew bi nga xam ne jóge nañ ci barki démb ci réew mi mbooleem jàmm gi ñu doon ñaan yàlla ak soññee gi ñu doon soññee ci jàmm mel ni na suñ borom defal nañu ko te muy élection yi nga xam ne ci lañu génn kon nag yàlla yàlla doole saxal jàmm ci réew bi ndax mbokk yi jàmm mooy tax nit mën a jàmm yàlla jàmm mooy tax nit bu bëggee liggéey liggéey jàmm mooy tax bu nit bëggee dox soxla dox soxla kon nag yàlla sax yàlla saxal jàmm ci suñu jëmm te saxal jàmm ci réew mi te kilifa yi nga xam ne ñoo amee réew mi it yàlla yàlla dolli leen jàmm dolli leen sàmm mbokk yi jàmm dafay loo xam ne doomu aadama mënu ko ñàkk ci àdduna doomu aadama mënu ko ñàkk ci bàmmeelam mënu ko ñàkk ci àllaaxira yonent yàlla yaxyaa ba ko suñ borom di ñaanal ñaanalu ko wërsëg bu bari ñaanalu ko wér gi yaram ñaanalu ko fan wu gudd waaye jàmm la ko ñaanal wa salaamun alayhi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'adhu hayya ma ngi lay ñaanal yow yahya yalla na jàmmi yàlla nekk ci yow ci sa dund bo faato bari mbar sax yalla na jàmm nekk ci yow bo dekke ci bis penc ba ci sama kanamir yalla na jàmm nek ci yow moo koy jàmm ku ko am laneen lo amati man ko jariño waye ku ñak jàmm laneen lo amati dutoo ko yek yalla yalla dafa ñu jàmm yonente euh Iisaa ibnu Maryam ba muy ñaan yàlla ñaanul wér yaram ñaanul fan wu gudd ñaanul wërsëg ndax xam na ne wér-gi-yaram ak fan wu gudd ak wërsëg bu ko nit ki amee te amul jàmm du ko jariñoo jàmm rekk la nit di am yooyu yëpp nga doon ko mën a am jariñoo ko moo mu ne wassalaamu alayya yow ma wulidtu wa yow ma amuutu wa yow ma ubaatu xayya maa ngi lay ñaan yow yàlla yàlla nag ma defal jàmm ci sama dund bu ma demee ba bar sàq nga defal ma fa jàmm boo liggéey ma dekkee taxaw ci sa kanam nga defal ma jàmm mbokk yi jàmm yi li gën fii moo gën fa la ñu jëm Cheikhul Khadim daane wax ne xamul ko gën fii ci àdduna xamul ko gën àllaaxira ñu jëm yàlla yàlla defal jàmm mbokk yi jàmm mooy nuyoo waa aljanna suñ borom nee na bo legge bo até ay jammam ba ñi dem aljanna ñi dem sawara yalla ñal yàlla musal ci sawara ta defal ñu aljanna fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'i neena wa aljanna sax bu ñu génnee ba kenn ku ci nek nga génn sa kër ak sa morom salaamullahi alaykum nga koy wax yalla jamm yalla nek ci yow o mokki nit ku dem ba aljanna di xewu ci xewal yalla yi ba ñu di la ñaanal jamm ana ki dund ci aduna mom naka la wara defal ta suñ borom neena allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. neena na aljana ci bir aljana salaamullahi aleykum alaykum lañuy lañuy nuyonté nuyoonte lañuy la ñuy ñaanalante bu ñu ba ci aljana malaaka yi nga xamne buñu atté ab jaam ba mu wara dugg ci këru aljana am ñokoy gungé buñu gungé bi ba ci buntu mu wara dugg ci bir aljana mi jox caabi muy ubbi malaaka yi dañ ko salamun alaykum tibtum fadxuluha khalidin yàlla na jàmm yàlla nekk ci yeen ñu teñ yeen ñi nga xamne ba ngeen nekkee aduna di dundu da ngay na saxor ci siratul mustaqim di jëfe ndigal yalla di bay ay tere surtout yéen a teey yéen a baax fadxuluha xaalidin kër yi leen yalla fayé ngi ni muy yi teranga yi duggu leen fi ngeen sax tak te dut leen fi ngeen yalla ñu yalla bol ci ñoom waxtu wo xamene ne malaaka yi ñew nañ di sét si nit ñi ci seen biir kër yi aljana ndax léeg-léeg dañuy jóg di ñew di visiter nit ñi ci seen biir kër bu ñi ñewé ubbi sa kër seen la nga tok ca njoowaat yi wurus yi ya di xewu dañ naan la alaykum bima sabartum fa nihma na jamm yalla nek ci yeen muñ gu reey ga ngeen doon muñ ba ngeen nekké ci aduna mo leen may xewal yi ngeen am فاليوم بدار سير ka bax kon bokki do maaru buy dundu day soxla jam. bu demee ci bambelam soxla fa jam bu deke bis penc ci jam la fay soxla ba bu demee ba ci bir aljere sax dañ koy ñaanal jam kon nak yalla yalla saxal jam ci rew su ko defee nga am kenn kaddu go xam ne ko denk sunu bop waye denk ko jullit ñëpp ci ab xëccoo lañu ñu jóge muy ay nit ñoo xam ne dañu doon xëccoo ay mairie ba suñ borom def ci jàmm ba lépp ñu sottal ko ci jàmm kàddu gi nag dañu koy dénk ñi nga xam ne ñoo doon wut ay ndombay tànk li ñu leen di dénk mooy ngeen dolliwaat yërmande ci askan wi ndax pré campagne yi ak jamono campagne yi li coow li doon bari bari yéen ñi taxawoon di laaj ay ndombay tànk doyloo ko leen askan wi doyloo woon ak am yaakaar gu ñu am yaakaar ci yéen ak jàpp gu ñu jàpp ne bu ñu leen joxee ay ndombay tànk bu ñu leen falee jox leen li ngeen di laaj da ngay leen taxawal ci seeni soxla loolaa tax ñu leen sonnal am na ñu ci seeni cër dam am ñu ci seeni deret tour am ñu ci damu seeni yax am ñu ci seeni alal yàqu ñooñu toppal ci seen ginnaaw nag di sonn ñu di leen gaañ léeg-léeg bakkat rotti ñuy dund ay coona defuñu ko ndax ñàkk fayda defuñu ko woon ngir ñàkk fuñ jëm defuñu ko ngir ñàkk ngir ñàkk luñ def dañ ko def ngir yaakar ci yeen ne liñu dund ci ay ciora pal gi ngeen laaj buñu len ko joxe da ngeen len taxawal ci seenu soxal ba wàññi len seenu ciora ñun nak suñu leader politique dañu min bu election jotee ñu ubbi seeni buntu ku len soxla man leena gis ñu wacc ñew ci askan bi jege lool di waxtaan ak ñom ndax lan dañu bëgg ay tak joxe ay ligne téléphonique ku len soxla jot téléphone jot len ñu jégué askan yu lool jaxoso ñom lool waye ndombay tank yi ñi laaj buñu ko amé tejj seen buntu ñalen leen buñu len ñu leen soxlaatee ñu len gis dag seen ligne téléphonique ñalen falon ak doon len sonnal démb ak barki démb buñu len leen soxlaatee duñ leen duñ leen jot téléphone loola nak taxul ñu tànn jitt ni ngeen sonné won ci campagne wacc ci bir askan wi di wax ak ñom di len tégué ak di laaj lan mooy seeni soxla ak di leen dig ginnaaw ba ñu leen joxee ay ndombay tànk ba noppi bu leen tëj seeni bunt bu leen dagg seeni ligne téléphonique na ngeen ñëw ci askan wi leen faloon te alal yi ñu leen dénk nga xam ne seenu moomeel la ngeen delloo ko ci wax askan wi te bañ ko def seen moomeelu bopp mbokk yi gis nañ bi ñu génnee ci élection yi ay leader politique yoo xam ne dañoo gagné ca lañ doon laaj ñuy jubilé di yo ko tàccu ànd ak mbolo kep ku xam responsabilité nak waro laaj ndombay tank bañu jox lako ba nopi ngay zibile ndombay tank ku ko laaj bañ jox lako ko da nga wara a da nga war a jaxle sayduna abubakar siddiq kérok bañ ko nomee def ko khalifatu rasul bi yaronte yalla muhammad gene aduna salawatullahi wasalaamu alayhi ñu def ko njiit mu wuutu yonent yàlla muhammad ci xet bi khutba bam jëk def ci ko min barba dafa wax nit ñi ne leen innama ana mithlukum wa inni la adri laallakum tukallifuuni ma kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam man day jaamu bi yàlla la kum yéen damay bañ nak ngeen togg ma la ngeen toggon yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ali te bokuma ak mom ndax mom yonente bi yalla laa man yalla yàlla la bokku ñu ay grat ndax rasulullah inna allah astafa muhammadan ala al wa azamahu min al afat yonente yalla muhammad suñ borom ko tan ci nit ñi musal ko ci bepp gak gak bokuma ak mom waye wa ma ana muttabiun lastu bi mu man damay top ci li yonent bi sallallahu alayhi wasallam indi won waaye duma ma sos lu bes daa wax nit ñi ne fa inistaqamtu fatabi'uni li feeg yéen a may gis ma nek ci yoon nek ci siratal mustaqim na ngeen may top waye wa in zuqtu fa qawibuni sa su ngeen gisee ma wacc aw yoon nak na ngeen ma delo ci yoon wi am ci sahaba yi ca bir jàkka ji ku jóg bocc jaaseem rocc ko ci mbaram tàllal ko jaasi ji ne ko laa nu xawimuka bi alsunina bal innama nu xawimuka bi xaddi suyufina gis nga boo jàddee yoon li nga ñuy jiita jiite li ngay doon doon doon xalifatu rasul du ñu la jubbantee ci sunuy làmmiñ waaye dañu lay jubbantee ci sunu ñaw kay jaasi yii ñu yor mbokk yi njiit noonu la war a mel responsabilité lu diis la ku yàlla jiital ci kanam ak aw xeet yëkkati alali mbooloo jox la daf laa sas sas wu benn nga amee ci aljana maa nga amee ci sawar na nga ciy amee aljana mooy nga waggar ci alali mbooloo ma fexe ba def ko ci seeni soxla te bañ koo def ci sa soxlay bopp mbaa ci sa soxla jabar boo lëgee yàlla dana la ci kanam mbooloo ma nga jiite woon bakk la kañ la tagg la sargal la ràng la ay midaay tàbbal la aljanna waaye nag boo jëlee alali mbooloo mi nga jiite def ko sa moomeel def ko ci sa soxlay bopp itey sa it itey say xarit ak say say am di jàmm ak say ñooñ fàtte askan wala faloon bu ëllëgee yowmal xiyaam yàlla dana la teebal ca kanam mbooloo ma nga jiite woon xas la ba xanc la ayibal la doyadil la doon la tabal sawara loolu nag lu mat a moytu la kon ñu ngi leen di bàyyi loo xel ngeen xam ne alali mbooloo yii ngeen yor du seeni moomeel moomeeli askan wi la dee leen ko def ci askan wi waaye li ëpp ci ñu ñuy jiite dañuy yore alali mbooloo paj mi ami jafe-jafe nit ñi tawat mënuñoo faju amuñu fu ñu dëkk njàng ma du dox jàngalekat yooyu soow jàngkat yooyu geraw napp ga doxut pay euh, euh, transport ba doxut dara doxut ñu bàyyi ba élection ñëw ñu génn ay milliards ak milliards sotti ko ci askan wi di joxe ab ceeb di joxe ay diwlin di may ay am lool bi xaalis waaw dama ne milliards yii ñuy def ci campagne yi ana moo tee ñu def ko ci soxlay askan wi waaye dañ koy denc ba askan wi xiif bu campagne électorale ñëwee ñu di leen ko séddale di leen may ñi ay ñeenti téeméer ak ay ay ay junne ñaari junne ngir ñu leen sànnil ay carte lu mat mooy moytu la mbokk yi alali askan wi de leen ko def ci soxlay askan wi tey moytu di ko def ci seen soxla li ñuy tëje nag mooy am na ngelaw luy upp muy ngelawal teqalikoo kàddu gii ma yëkkati nag imaam yi laa ko jagleel ak borom xam-xam yi ci réew mi ñu xam ne ab imam duñ ko tànn ndax ab judd desu ko tànn ndax aw askan tànnee ko ngir alal tànnee su ko ngir lenn lu may tànn jàpp ne lii ñu lay defloo man nga ko ab imam bu ñu koy tànn dañ koy tànn ngir ak xamam loolu mat a bàyyi xel koo xam ne bo djuma jotee mbolo mepp dañu tok di xaar bo ñëwee ñu tek la ci kaw minbar bo taxawé ci minbar ba di wax kenn sañu tuta julli kenn sañu tuta wird kenn sañu tuta jang alquran kenn sañu tuta def genn jaamu yalla ak lu jaamu ko bax bax ngir diglu la yow imam, du yow ya am solo waaye kàddug yàlla gi nga am solo ndax yàlla moo woo ay jaamam ne leen dem leen ca jumaa ji ngeen diglu jil ma imaam bee kon kàddug yàlla nga yor dëgg rek nga war di wax am na ñaar yoo xam ne nag ab imaam waru ko ragal muy këpp ak këpp këpp mooy lan këpp la ngir nga bàyyi wax dëgg mbaa ñu këpp la alal ngir nga noppi bañ a waxati dëgg yii nag bépp boroom xam-xam danga ko war di daw boroom xam-xam yi dañoo wuutu yonente yi salawatullahi wasalaamu alayhim yonente yàlla muhammad nee na al ulama umana ur rusul maa lam yu xaalitu sultaan walam yadxulu fi dunia yonente yàlla muhammad nee na boroom xam-xam yi imaam yi ñoo wuutu yonente yi ci kaw suuf li feeg ñaar amut li feeg jaxasoo wuñoo buuri àdduna yi mbaga seen len leen ñuy rëbb àdduna ñom imam yi mu ne fa isa khalatu sultan wa dakhalu fi dunia faqad xaanu allah wa rasula bu ngeen seené borom xam-xam yeeg imam yi ñuy dem di jaxaso buri aduna yi ak di alal ni ñoñ aduna di rëbbe alal neena ñoñ war nañ yalla war nañ yonent yalla muhammad Sallallahu Alaihi alayhi ndax seen rol doon won loola seen rôle mooy doonoon jàngale ak jang ak gindi xeet bi jubal leen ak war leen ak delo leen ci yalla loolu mooy rolu imaam ab imaam wërta jaxasoo buur àdduna wërta yi xuus ci biir àdduna xuus ba ëpp rasulullahi ne fu ngeen séene imaam yi di ko def rek na ngeen leen moytu fa'taziluhum wahtaruhum na ngeen leen beru te moytu leen ndax dañuy nekk ci njuumte ba noppi xëcc mbooloo ma dugal leen ci biir njuumte lool ndax borom xam-xam bu nekkee ci njubadi njubadi kam nekk daf koy layale ci alquran ak sunna seen nabi sallallahu alayhi wasallam ngir bëgg nit ñi woyofal njubadi gi nekk moo tax boroom xam-xam bu jubati lu mat a moytu la Cheikhul Xadim daane wax ne buurub àdduna boroom xam-xam bu sa jaxasoo moom donte ne daf koy digal yiw di ko tere safar sax nee na danger nga ca kon nag loola dañ koy dégg suñu bopp te di ko dégg mbooleem imaam yi ak boroom xam-xam yi ñu xam ne kaw suuf si ñu nekk suñ borom daf leen fee indi ngir ñuy digle yiw ak di tere safar digle yiw wi ak tere safaan bi it nañ ci gar seeni bakkan ndax bépp borom xam-xam ba bépp imam bo xam ne gis lu bon ci pench mi ba nopi nga ragal ko wax ndax ragal ak nga mel, ak yalla mu tejj la ci bammel te mbokk yi kaso aduna yi ñu ragal de bammel ko xat da nga danga ak yalla mu tejj la ci bammel lijeenté ak yow ana lan mo taxon ma jox la xam-xam xañ ko ñu bari nga nekk ci kaw suuf moo wax loola dëgg ba noppi ngay nëbbu dëgg ga ngir ragal koo ko ku la xooxatal mbaa ngay bëgg ku la jox dara loolu na ko imaam yépp mooy te nag ñu xam ne am na luy xeeñ te mooy fas yéene nañoo jël imaam yi ak boroom xam-xam yi def leen ñaari xaj su ko defee ñoom ci seen biir ñu jàmmaarloo imaam yeeg boroom xam-xam yi ñenn ñu ci nekk di sànni seeni moroom ay tarak su ko defee la taxoon yàlla wàcc ñu ci kaw suuf muy xeex ak mbon ñu fàtte ko su ko defee imaam yi def ñaari camp ñii taxaw fee di xas ñi ñee taxaw fee di xas ñele loolu nag nañ ko moytu li may wax ni ñu bari xam nañ ko imaam yi nañu xam ne yàlla daf leen a wàcc ci kaw suuf ngir ñu jubbanti xeet bi ab imaam lépp lu mu gis ca pénc daf koo war a jubbanti daf koo war a wax ak lu ko ca mën di fekk man raa minkum munkaran فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلساني وإن لم يستطع فبقلبي وذلك أضعف أضعف الإيمان رسول الله نينا كو سين تي بنت مي لو بون دانكو ديندي تي نيات انام يي بن nga am katanu dindi ko ci sa loxo dindi ci sa bo amul dindi ci sa ta nga mën wax bon li jóge ci penc mi waxal ba bon li jóge fa bu fekkee ni yii yaar mënoo ci dara nag nga door koo bu ñu kenn ragal lool ñun yàlla lañu wóolu moom lañ gëm moom lañu àndal la ñu fas yéene mooy waxal yàlla ak dëgg ci kaw suuf bu ñu demee ci suñu bàmmeel ya mën a sëggi jàkkaarloog yàlla bu ñu laajee ñu tontu ko xel mu dal amul kenn koo xam ne mën nga ñëw xupp ci dara ba li yàqu ci penc bi duñ ko wax incha allah lu yàqu ci penc bi danañ ko wax